alali saxaaba yi buñ ko seetee buñ ko seetee li ñu amoon lépp alal ju mel noonu la ñoom la ñu njëkk waxtaane loolu moo tax bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi na saxaaba yi adduna ak alaxira xamal leen lépp lu ñu war a xam ba limaam Abu Hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa fi dem fekki boroomam lu dul ba nga xamee ne xamal nanu ba picc sax yóbbu naa leen ñu xam ca jële ci ay xam-xam yu yu bari sayidna omar ne i'malu wa tawakkalu ala allah fa inna samaa la tumtiru zahaban wala fiddatan na ngeen gëm yàlla da ngeen sabablu ndax asamaan si kat du taw wurus du taw xaalis yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dafa mas a am benn arab yi boo xam ne dafa ñëw bokk ci wu fuut bi di ziyaara si bi mu bàyyee gëléem gi ci bunt kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ndax da nga dul yeew sa gëléem gi mu ne ko dénk naa ko suñu borom yonent bi sallallahu ne ko sama doom yeew ko ba mu dëgër te nga dénk ko sa borom kon alal ji leew jooju muy wax daan waxtaane tuyaabaam daan waxtaane nan lañ ko sàkkoo nan lañ koy sàkkoo ak sàkkoom la ca nekk ci ay daraje yu ñuy ay garaat yu ñuy takkal jaam bi ko doon sabab lu yomal xiyaam alal ñu népp loo ci fab lu mu tuut tuut nga dugal ko fa nga ko war dugal bu dee aw ñam benn pepp bu ci nekk daf lay sàbbaal ba ba yomal xiyaam bu ko nit lekkoon itam daf lay sàbbaal benn pepp bu ci nekk ba ba muy rees ci biiru nit ka te bu yomal xiyaamee dana taxaw seedeel la. te rii nañu wa luqmatun tasuddu batna jaayi abnaai alfi jaamiin benn ci ñam boo xam ne dana defal aji xiif moo ëpp a ëllëg tabax junni jumaa ñu xam ne nag kon janax bu réyee bañ naan mu ngi toll ne nag bu tolluwul ne nag lii rëy na lool ba doy waar kon ci ñam ñam boobule nga jox aji xiif ji bu ne moo gën tabax junni jumaa yowmal qiyamé ka joxe woon ci boobule te sàkk ko ci alal ju lew joxe ko ci xol bu tàlli ngir jëmmi suñu borom tabaraka wa taala buñ koy fay képp ku jànnoog moom ak moom da nga ko ñee cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu nee na yowmal qiyam sun borom dana dugal àjjana ñett ci benn tibuk ñam moo xam la nekk ay raisin wala tàndarma wala lu mu doon nga ko ñett ñi ñuy dugal àjjana ci benn tib boobu kan ak mu ne hum saaxibul bayti amara bi wa zawjatun muslihatun faltanta bi wa xaadimun taxmuhum lillahi mu ni góor gi nga xam ne mooy liggéey jënd ñamam indi ci kër gi jigéen ji nga xam ne ci loxoom la ko teg mbindaan mi nga xam ne day liggéey rek ñu di ko fay doonu fi leneen jigéen ji ne ko tibbal ci dugub ji wala tibbal ci tàndarma ji jox ki yelwaan mu tibb ca tàndarma ji jox ki yelwaan bu keroogee ba ñu fab siraat jàpp gàcc ko ci jëgëru jahannama